dal leen jàmm ci xibaar yi yéen kaay wuréew dem na kër ngi waxi mag dem na dañ caali jamono ji nag candidat yi ku nekk yaa ngay waaj jongante njiitu yi nga xam ne moom moom ak maître Madické Niang ñu ngay jubale ci Mbàkke de ñoom Mbàkke la jëm laa wax Mbàkke fa nañuy amalee seen ab campagne waaw foofee la koy ubbee waaye nag bu dee Idrissa Seck moom Ndamal Kajoor ma nga jëm ca Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar bu dee nag ki xam ne nag moo di Dakar ak ki nga xam ne nag moo di Issa Sall bu Pire Vox Populi di ñu xamal ne ak lu mën di xew daal jongante ji ci réew yoo xam ne nag dinañ ci xam ne ñoo di askan wi ngir daal leen di yey ndax buñ leen nañu xaar jongante bu saf saf dara na te yomb ku taxaw te waxul lu leer muñ ay dëmbooj waaw gaynde bamba ji démb koy daanaka safoon na muus am dajale woote woon taskatu xibaar yi bàyyi fu nekk ngir dem fekki ko wax na ko bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Sud Quotidien mu ñuy xamal ne prolongation moo amoon waaw ay dadaa dëgg bal bi amul dara leer loo xam ne wax na ko yéenekaay bi gën cee dafa am ci ñenn ci ay responsable yoo xam ak déggoo amul ci seen diggante ñenn ña dañoo bëggoon ay dëmbooj moomee fekk ki nga xam ne moo maam Aïda Mbodj moomee kañ lay wax lu leer enquête di ñu xamal ne Aïda Mbodj ak lu mën xew fii ñaari fan danañ ko dégg te danañu dégg mu wax lu leer maanaam Aïda Mbodj dina ne kii lay jàppale wala kee lise ko yéenekaay di xamal ne élection yi nga xam ne moom la ñu dënmal dara du yomb ndaxte mbir yi jamono ji daanaka moo raw ak daral ndaxte candidat yi nga xam ne ñoom la ñu rëkkale waaw muy candidat yi nga xam ne dañ leen a jotatee njiitu la république Macky Sall moom ne njiitu réew mi président de la république Macky Sall parrainage boobee dañoo jàpp ne dañoon gàllankoor yenn ci ay candidat waaye moom mujj gàllankoor ndaxte jamono ji ñi nga xam ne mooy candidat yi nga xam ne dañ leen a téye bàyyiwu leen noonu ndaxte ku mu ca xam rek ma ngay dem ca moom ngir waxtaan ak moom ngir ñu jàppale ko keneen koo xam ne nag waxul leer muy Khalifa Ababacar Sall moom mi nga xam ne moo fi jiite woon mairie bu Dakar te jamono maanaam Khalifa Babacar Sall moomee yi nga xam ne moom la ñu kan la ciy jàppale candidat bi nga xam ne moom la wax xale yi ngir ñu wax seen xalaat ci wàllu politique Issa Sall di ko xamal ne jamono ji kay aw jotu xale yi ndaxte damaa war a dem fa nga xam ne moo di RTS ngir jàkkaarloo ñoom Chérif Dia ne ko ëpp naa def xale yooyu nga xam ne da nga Sall di ko xamal ne ko man kay loolu sama ngan ñu nekku bu leen neexee sax nañ ma a voteel déet waay Sall waaw Issa Sall ne ko bu leen neexee nañ a voteel laa wax loolee nag yéenekaay bi jàppee ko erreur bu rëy erreur monumentale 24 heures yéenekaay moom nag di kat xamal ne moom Abdoulaye Wade koy séntu ci réewum Sénégal di 24 moomee bu wàccee dana am benn marche bu la boo xam ne dina ko organiser mbaa loolee du

jamono ji ña nga ca de ña ca combat ba de am nañu yaakaar ne balaa yàgg combat diggante Eumeu Sène ak Modou Lo dinañ ko taxawal afaana ñun en tant que promoteur combat boobay sax bu fekkee ne dañ koo taxawal mu nar a indi ay jafe-jafe am na beneen combat boo xam ne fas yéene nañu koo tëgg jërë ngeen jëf ba beneen koo tëgg